accord euh, comment sortir de cette de cette impasse là le président de la République il a pris acte et il s'est engagé à exé à exécuter pleinement les décisions du Conseil constitutionnel euh, ñu ngi xaar les prochaines heures vont être euh, décisives euh, lan ban solution sortie de crise nga entrevoir. voilà merci beaucoup <coughs> Maïmouna balaa may ñëw ci ci solution yi d'abord dama bëggoon euh, rappeler un peu quand même li waral quand même. le problème parce que il faut dire que aussi bien dans la formulation comme dans les acteurs c'est des nids de près hein, attachés au régime c'est bel et bien un groupe parlementaire de l'opposition qui a formulé des craintes des accusations mu porte ko d'abord sur le processus ñu ngi koy minimiser alors que beaucoup d'entre vous en un moment de ce processus là ont fustigé ce processus que ce soit Khalifa bi muy mottali son parrainage que ce soit Bassirou Diomaye Faye même même non. même non ma ñëw rek. Khalifa mottaliwul parrainage non waaw waaw euh, euh, Bassirou Diomaye même Thierno à tout moment ñu ngi ko doon dégg muy posté di andi euh, ay. ay ay ay ay ay critique en tout cas muy muy muy rappeler que processus bi am na problème ci loolu du ñun kese ah ñu bari que ce soit recalé en tout cas la pratiquement la majeure partie des recalés comme ñi nga xamante ne am na c'est des acteurs jàll nañu mais xam nañ ne quand même dispositif parrainage bi am na ay problème donc l'opposition ñoo ko formuler demandé ko ne nañ ko xoolaat yemuñu foofu ñu acté ko mais ñu acté ko ci institution mu nekk troisième fait nu ñu ko acté ci institution. non mais ils ont ils ont ils ont ils ont demandé à ce que ñu ñu dem vers une enquête parlementaire yemuñu si ñu dem vers une loi donc tey le président de la république mun nañu rappeler un peu processus Sénégal en tout cas les moments les plus sanglants de son histoire soit c'est avant ou après élection mën nañu rappeler mun mën nañu rappeler 88. mais le président de la République charge charge yi mu yor bu ko neexee mu jàpp ne ce pays là bu ma ko pour ma bañ koo précipiter ci phase de phase de contestation mu mu jur ay incendie ak ay problèmes nañu waxtaan ñu am consensus bu gën a large pour ëllëg ku fi mun munti toog kenn du ko contester kenn du contester sa légitimité donc je pense que aussi parfois dañuy rappeler l'esprit maanaam li waral que ñu bañ a yem ñu bañ a def un discours accusatoire tey le président Macky Sall en tant que euh, euh, président en tant que garant tey kenn mënul wax ne réew mi amul séparation des pouvoirs te loolu aussi même bu ñuy débattre nañuy acté au moins di avancer. que institution yëpp ñu ngi joué seen rôle. institution yëpp ñu ngi joué pleinement seen rôle. exécutif bi ñu jàppee ne bu ñu waxtaanee am lu inclusif mais surtout lu sincère xam nga l' aspect sincérité là dafa am solo ci dañ koy teg fële tey amul kenn tey fii nii ku mën a wax ne le futur président dans ces conditions la kenn du ko contester wala kenn du ko ŋaññi ou bien crédibilité ñëpp dinañ ci d'accord parce que waa PDS nekkuñu fi mais tey xel mën na nangu ñu bañ a nangul président boobu noonu. e d'ailleurs juste préciser que waa PDS ils étaient conviés parce que ñoom bokk nañ ci acteurs yu important ci processus bi mais ñoom dañuy xaar une résolution de leur parti euh, balaa ñuy jël euh, la parole. yemuñu foofu parce que euh, la décision du conseil historique. mais fait yi ko yi ko jiitu aussi c'est des faits historiques ñu ngi doo ko dem élection ñu accuser ay juges constitutionnels de de corruption loolu aussi lu lu bees la lu historique la lu jéggi dayo la yemuñu foofu ñu acté ñu ñu ñu accuser un candidat de surcroît un premier ministre d'un gouvernement donc tey boo jëlee l'esprit di nga xam ne ki nga xamante ne moom moom mooy le président li ko taxoon a jóg en tout cas li mu bëggoon mooy réew bi yëpp en tout cas tout le processus acteurs yëpp force vive yëpp ñu toog ñu waxtaanee ko ñu am loo xamante ne lu consensuel la ba ëllëg parce que Aba wax nga ko sànq ñu ngi dem ci vide boo xamante ne tey président rek la ñu yaakaar ci sagesse mu jël les dispositions en tout cas waxtaan parce que dialogue muy technique muy politique dialogue la rek foog nga waxtaan ak acteurs yi ñu xool ndax dañuy compressé ndax dañuy en tout cas ñu juboo sur des su des dates majeures pour ñu mën a ñu jéggi loolu. mais mais tey tey tey ñëpp nañu na nañu d'accord également que ne suñu continuer woon le processus bi le président Macky Sall bëggoon noonu nañ am loo xamante ne lu consensuel la. lu apaisé lu sincère du am benn contestation et puis réew mi mën a jublu ci leneen. mais... la démarche est contraire au, principe constitutionnel. waaw mais bëgg bëgg a d'ailleurs conseil constitutionnel rappelé na ko. nee na quel que soit euh, les conditions. Euh, quel que wow. soit euh, les, les les débats en cours mënuñu décider comme ça. Euh, d'une prorogation du mandat présidentiel. mais le conseil constitutionnel tey su déclaré woon tey incompétent on ne va pas créer au scandale ah oui revirement jurisprudentiel la kenn du créer scandale non non si dañuy waxtaan rek yàgg nay am ñu andi ay loi indi mu déclaré incompétent d'autant plus que moom dañ ko accusé mu ak ñu activer la procédure judiciaire tey le conseil constitutionnel mënoon non déclenchement procédure judiciaire bi semaine bii la. waaw mais mais justement mais en tout cas c'est avant. c'est avant la décision. ah c'est avant la décision donc tey loolu yëpp boo ko convoqué le le conseil constitutionnel pouvait valablement se déclarer incompétent. mais Maïssa. waaw euh, conseil constitutionnel à partir du moment où publier na la liste des vingt candidats mu motiver sa sa décision ñu ne les les les les les actes du conseil constitutionnel ne sont pas susceptibles de recours. oui euh, candidats yi di préparer wu di dem élection ñoom kenn waxatu ci waxu report. kenn naangatu ci ñu ngi ci seen élection ñi bokkul ñoo ñu noo ñoo doon yuuxu di wax waxu report est-ce que cëru président de la République en tant que garant du bon fonctionnement des institutions euh, pouvoir conféré par l'article 42 est-ce que du woon cëram comme ni mu ko defee ci décision bi tombé démb mu conformé wu à la déci aux décisions du Conseil constitutionnel et puis nous nous nous, nous faire l'économie de cette crise et de cette impasse posture la mun mun nañ xalaat loolu mais je rappelle également que le président ci démarche am ak ci ay orientation am c'était également pour nous éviter des contestations ak des problèmes post-électoraux loolu aussi. mais moom dafa am lu ko tënk dafa am ay textes yu ko tënk. c'est-à-dire mënul ci coobareem mu jóg jël ay décision basé ko ci dialogue ak ak ak ak volonté de retrouver euh, un apaisement surtout que y avait pas de tension. waaw mais y a y a quand un groupe parlementaire. quand même a ki a qui a contesté qui a écrit qui a initié euh, projet de loi. mais tout ça participe le, de la bonne marche des institutions. mais mais mais, mais justement moo tax aussi nañu nangu ne pouvoir exécutif li mu li mu yaakaar ne bu ko defee réew mi plus tard dina am stabilité dans le temps def na ko le pouvoir législatif ñoom aussi. nañ leen nangul ne peuple bi la ñu représenté li ñu yaakaar ne bu ko defee dinañ dugg dans le droit wala dinañ ko tarifier def nañ ko mais le pouvoir judiciaire aussi def na li nga li nga xamante ne jàpp nañ ne moo cohérent avec ses démarches antérieures mais en fait de compte le Sénégal quest moom moo ci gagné on a bien voulu essayer ternir suñu image durant toutes ces voilà dizaines de jours les mois lu lu nekk dégg nañ ko fii. recul démocratique lu nekk mais non. non c'est c'est c'est une véritable séparation des pouvoirs pouvoir yëpp ku ci nekk exprimer kiw nga wax nga sa xalaat li la yoon may def nga ko mais le président tey ton tontu na ne accepté naa décision bi en bon républicain te loolu du tey le président Macky sale à chaque fois que ñu ngi ko interpellé pour réew mi taxaw bañ a daanu i a agi conformément en en bon républicain munoon na tey mu dem mu ne man damay représenté wu bu boobaa aussi li fi amoon moo fi amaat rek débat juridique mais mu ne pour préserver ce pays de problème je ne me représente plus tey lii aussi aussi ñëpp gis nañ ko le contentieux et la nañ dem élection tey tey tey mënoon nañu am beneen tremblement de bu président ne woon day day présenté wu waaw mais mais dugal dossier de candidature am conseil mënoon na ko ne euh, article 27 nee na nul ne peut faire plus de deux mandats successifs. waaw mais dafa mel ni sur la question du mandat de la durée du mandat ak sur la question de la clause clause de euh, de d'éternité le conseil ne blague pas. mais mais mais xam nga le le débat juridique la rek ñun ñëpp aussi dégg nañ ci pas mal de juristes des professeurs agrégés même de droit ñu jàpp bëgguma ñu delluwaat ci loolu que le premier mandat de de bokk ci am na ñu défendre cause boobu dama ne wax dama bëgg wax ne président Macky Sall nañ ko nangul que c'est un républicain nitu jàmm la su bëggoon tey plonger le pays dans le kaw foofu lay démarrer mais loolu la njëkk a lever ne non seulement je me représente pas mais dinaa garantir que ñu dem ci élection bu inclusif bu sincère mais fi ñu toll nii élection yi passé nii la transparence euh, loolu lépp dafa am lu leneen lu ñu lu dugg ci biir muy la sincérité même. merci te loolu tey ñëpp nangu nañ ne ñi ko impulsé du du du du le parti au pouvoir. voilà donc groupe opposition la ñoom ñoo ko impulsé. merci alors. Euh,